daleen nag jàmm mbokki internet yi safoo di seetaan ba SN ñu daal di àddu wax ci mbirum la grande masseuse wala sax masseuse bi gën a siiw ci Sénégal Adji Raby Sarr lay daal di wuyoo gannaaw ba nga xamante ne nii nag gëjoon nañu ko dégg lool ci Sénégal moom mi nga xamante ne nii rek moo fi tuumal crédit Ousmane Sonko lii di viol ak menace de mort gannaaw ba nga xamante ne nii nag bileb dossier ba léegi ñi ngi koy topp amagul fin ba léegi moom gannaaw ba ñu ko gëjee dégg nag kële la di Serigne Mara Niass nekk ñu ràññee lool ci Sénégal moo daal di ñëw yëkki ay kàddu jëmale ko ci moom mile di aji raabi saax gannaaw ba nga xamante ne nii saax nee na kële di aji saax da ko daal di seet si maanaam ci gént ah, gannaaw nag ba mu ko gisee nee na aji saax ci anam yoo xamante ne nii rek wér gi yaramam demeewul noonu maanaam aji raabi saax dafa nekk ci ay xat-xat te nee na rek képp kuy mbokkam bu yeboo mu dimbali ko mu dimbali ki nga xamante ne nii rek moo di aji sax te it moom nee na bañ nit waaye jikkoom rek lay daal di bañ waaye nee na sénégalais dañoo war a jàppalante tax mu di yëkki yooyee kàddu di wax ni rek aji sa aji rabi sax soxla na ay ndimbal ndaxte rek ci anam bi nga xamante ne nii rek gisee na ko maanaam dafa nekk ci ay xat-xat waaye nee na rek ba mu gisee que di aji rabi sax maanaam soxla na ki nga xamante ne nii rek moo di euh, Serigne Mara Niass Serigne Mara Niass nag moo daal di yëkki yooyee kàddu di nga xam ne ni daal aji rabi sax mi ngi ci ay xat-xat bu yóbboo ay mbokkam ñu daal di koy euh, jàppale